asalaamualeykum mbokki Sénégal bi mbokki àdduna maa ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant du di ñaanal ñëpp jàmmati di ko sàkku ci yéen keroog bi yaay jame ak reeni win nañ ko yëre bii laa soloon toog fii ak suma kontaante waaye teyit yëre bii laa solaa toogaat fii ngir naxar Yaya jame Yaya jame xam nga ne du yomb billaahi wallaahi watallaahi bañ ma ne ma win nañ Yaya Jammeh Yaya Jammeh na laa ne am na lu ci laxasu bañ ko xoolee ba xool ko am na lu ci laxasu Yaya Jammeh bi nga jëlee Gambia da nga tàllaloon sa ñaari loxo yépp bu ci loxo bu ci nekk nga def ko nii mooy sa danga bugga nag Gambien yi reyante da nga bugga deret tuuru Gambia dina fa am dina fa am ndaxte olof mu ne ko xamut suur naa dañu war a téye sa loxo ku xamut suur naa dañu war a sa loxo jaami yàlla yi moomuloo leen moomuloo gambia mais ñu jàmm mais ñu salaam suma dëkk bi suma dëkk bi yow nga judd feeka dëkk bi ne yaa ko moom mais ñu mais ñu jàmm soldaar yi nag dañ bett gambien si ndax gambien yi ñoo leen di fay xaalis bi ñu leen di fay si poos yi gambien yi li ñoo génnee man bi ma déggee xaw ma Sol Badji xaw ma Ousmane taxaw naan waaw ñun pare nañ pour liggéey ak government man li ma riit si moom su ma ko <laughs> bañ ku la sikka rek nit buy wax dëgg gum ñeme kanamam dafa fif fir yi waaye di la wax dëgg mel ni ku feebar am na lu ci laxasu win nañ la nga nangu ne àdduna bi yépp ne win nañ la nga seedeel àdduna bi yépp ne win nañ la donte sànni karta bi aagut ngela sàmmal sa ngor sàmmal sa ngor nga joxe réew mi ci jàmm nit yi dañ fa am yaay am fa baay bu lor sunu doomi réew yi buñ lor sunu doomi réew yi te métti métti métti dem rek de dem rekk dem day am de te ku taqal sa loxo ci lii di ko rëccu di ko rëccu de di ko rëccu ndaxte Gambia dafa tuuti tuuti gi Gambia tuuti war naa tax soldaar yii war nañoo bàyyi seen xel te dañ leen ger lii ger la mun a nekka yow naka lañ laa winee nga jël forty nine soldaar nga promote leen jox leen ràng moo tax King Jobis bam ne am na luy xeeñ liy xeeñ Gambia moo ko neexut looloy dëgg te wax na dëgg looloy kii kii kii dëgg lu waay rendi nag sa loxo lay nàcc yaayaa jàmme fi mu nekk lim nar lim nar mooy dem yóbbuwaale ay nit dem yóbbuwaale ay nit lu muy sombi buñ koy naanee du neex a naan te nag Gambien si mboolem ku feeñoon ci opposition yéeg yii bàyyi sa xel bàyyi sa xel bu baax a baax a baax gaynde bu mer la foogutoon ne Gambien si nañ ko against a ah, soo lifin carte gi ñoo demee nii naxari na ko ba ci kanami yàlla mu ne dañ dégg na sax ñu ne yaayam gaayaa ngee wax ne yaayam dafa dee naxar yu bari la boole naxar yu baree bari bari la yaay jame boole te nar naa feeku feeku yoo xam ne du neex de du neex te kuy seetu ne dafay neex nax nga sax boppa te seetkat biñ ma mos a seen fii mu wax ci élection yi Yaya bi bii élection bii li mu waxoon yëpp am na soldaar yuy jóge koo bitim réew dugga ci biir Gambia rek moo ci des waaye gis naa ne xaalis mooy àdduna xaalis mooy doole soo amee xaalis loo bugg a def loo nit ñi nañ jël seen personnalité futt ko sànni ko fele jël sa xaalis ba pare nangu ay deret tuuru nangoo sanka gambian si yàlla gomut nelawut de yàlla buur wi gomut nelawut te du musa nelaw du musa wa kullu nafsin zaiqatil mawti bakkan bu ñam dund dina ñam dee loolu la yaaya jame def si boppam bi léegi bakkan bu ñam dund dina ñam dee kuy mboolem ku kontaan nekk ci la la neex bés dina xëy nga ñàkk ko xam na ko te xam na ne li muy ñàkk nii du jàmmam du jàmmi ñi nga xam ne ñooñu la kii promotoon ñu ko defal liggéey bu salte bi xam na ko de am na soldaar yoo xam ni nguur yi yaaya jame bàyyi réew mi arrangé wut leen ngir seen jëf ci réew mi yaaya jame wàccam am na soldaar yu bari arrangé wut leen ngir jëfam seeni jëf Gambie nag réew yi jàmm la ku koy Samba Sagnang ba mu tëbee fële na jibmeet Gambia kirti karta sénégalais ñoo ko ne ko xaaral ñu ñëw won la ku xamul suur naa dañuy wiccax sa loxo yaa jame yaa génnee xoli gambien yow yaa ci génnee sa boppa ba nga commencé indi yëfi xeet te gambie dafa tuuti dañ ràbbaloo dañ sëylante dañ meyante ay jabar kër boo dugg a fekk fa différent xeet nga yàqal sa boppa Gambia Gambia jàmm la Gambia bi ku xool ni nga ruulee rek war naa xam ne yow divide nga nar divide nga nar Gambia ñëpp ñi nekk topp li fi ni yëpp sa mbokk lañ ñoo wax waxi xeet yaayaa jàmmee njëkk a indi yi fi xeet Gambia honorable Jiba honorable Baaji honorable Bojang honorable Jammeh honorable ba kañ àdduna poti ndaal la da naan jox sa morom naan waaye doo siisu si pot bi rek ne yaa war a naan yenn yi du xel du xalaat mel ni xale boo xam ne day namp ci yaayam fekk feraluñ ko fekk fasawuñ ko feral ko du fer gambien yi won leen ne yaaya jame bugaatu leen ko yaaya jame won leen ko ne ko bugaatul leen ko dafa doy dafa doy hmm. soldaar yi xam nañ li tax li tax soldaar yi xam nañ ko li tax ku nekk ku nekk pare dee ngir yaay jame mu toog yow ñu win la di depuis kañ lañ la win kisi kisi wuloo li jante wuloo toog bam la neex na waaw dugga fii génn na fële bugga ne foog ne Gambien yi ay dof lañ su ngeen jiitalee seen intérêt bàyyi Gambia di ngeen ko gis bu ngeen jiitalee intérêt yaaya jamme buga a toroxal gambian si di ngeen ko gis ganaari kenn nenu fi kenn suñ fi suñ fi organise son ten élection sax dañ ko win nguuram jeex ku sa nguur jeex gomal yàlla ñu ne buur nag dina xam la koy folli waaye li koy folli moo ko dut li fi neex buur boo gis xam na lu koy folli lu koy li ko war a folli moo ko neexut bu soose waree toogaat ci réew mi ma dee dem na ma wax nga wax bu rëy yàllay tey nag yàllay tey màgget bu saxi be jaaw mooy wax lu du dëgg yàlla suturaal ko waaye xale boo xam ne sa bopp bi weexagut yàlla yàlla fen loola lu yomb la Gambia rek laa gis général luñ kuñ ne général la général kay war naa mun a óolu boppam général général du tur rek de général waroon naa óolu boppam ba du ekkati ay ay gàllaaj di ko ràngoo si yaramam bi dafa ruslu dafa ñaawlu ci réewi jullit mel ni ko am combat ba ma ko gisee rek laa ne Gambia toj na am na ñu ma jot a waxal bi ma gisee nataal boobu am na ñu ma jot a waxal xam nañ ne ñii bugguñoo demee nii Yaya Jammeh suma mbokka la def na fi lu ñaaw warta tax nga difen ko ba ay nit yi ba ba ñuy séentu nit am ñu ci war a dee yónnente bi mu ne sa mbokk bu nekkee ci dëgg xeexle ko bu bu nekkut ci dëgg xeexle ko ñu ne ko bu nekkee ci dëgg noo ko ñu ne ko bu nekkut ci dëgg noo koy xeexlee won ko ne ko li ci li nga nekk du yoon xëcc ko ndànk ne ko ci li nga nekk du yoon tegal fii sa tànk teg fii sa tànk waaye jëf yi jëf yi sa doole moo waral lii tey am maa am doole bi lu ma neex lay def aadama nag moom du mun a def dara ndax even du one single para boo xam ne moo ko lifin gaat loolu rek waroon naa ñaawloo xeli Gambian yi ndax ñu ngee gis aadama si télé yi loolu waroon naa waroon naa woon gars yi ay science foo ko gis si TV yi outside la ñoo ko interview ñooy def yëpp Eh, <laughs> kuy o fitna yalla rëbb na kuy ye fitna waaye soldaari gambia ci bopam sax ñoy e fitna soldaari gambia ci bopam man ñom ñoñu la gis ne ñoo bugg e fitna khalis ak ger war leen jaral li rew mi di la fay intérêt benn nit rek tax nga bugg ñu taal gambia lo fi gis tay jeex amul lu jeex gambien yi nak ñoo la faloon jox la seeni but te olof njaay mu ne ku la abal ay butam fu ko neex ngay xool ñu abal la but, bët xooluloo fu ñu neex ñu foqan ci kono nga ne déedéet du ci dal ngir ko jukku jaaral dafa neex dafa doy dafa doy réew mi réew yi jàmm la yël na kopp seen kaw yàlla mi ñu tiim lay laay ñaan ñaan bii yéen mi nga xam ne yéen ay sooke lii yal na kopp seen kaw ba mu leen doy sëkk yaay yeeg baay yeeg sista yeeg am di jàmm yi ñëpp nekk fa ngeen bugg a taal réew mi ci intérêt benn doomi aadama ak jëf yu ñaaw yim leen jëfloo koo xamul buur saay na xam buur dee na Gambia Gambia ñëpp la Gambia du Gambia usmaan Badji Sol Badji Yaya Jammeh ak seeni xaalis doylu leen doylu leen ëllëgi Gambia moo gën xaalis ëllëgi Gambia moo ëppoo eh, lifin value xaalis yow ñu laa jël nga taxaw waat talal sa loxo ne di nga difen Gambia and anyhow ak lu munte xew joxe nga sa bakken ngir gambe nek ci lifin yaya jame tiye kamil alquranul karim billahi wallahi talahi dina dina tek tankam jegi ay jego ngir gambe jëm kanam mbollem luy delo gambe gannaaw du ci taxaw bu dee la nga téye kaamil la yàlla dina la xalak mu gaaw mu yéex nag li nga téye bu dee kaamil la mu gaaw mu yéex yàlla dina la xalak ndax jéego yi ngay jóge góor dëggantaan góor dëggantaan góor dëggantaan du topp nit bàyyi xaalis topp fen bàyyi dëggantaan góor dëgg du ko def am na soldaar yoo xam ne amuñ doole seen xol ak seen xel ci nekk mooy ceeñees loolu mu ngi fa waaye dañ am ay njiit njiit yi dañ feesal seen gémmiñ ak xaalis te yaakaar nañ ne buñ demee dootuñ ko amati gis nga baadoole buy xosul di xosul di xosul ba nekk ci kaw la ko faa ngeen baalal ma maa ngi maa maa ngi live la ko faa génnee doole bu nekkoon ci suuf xeexa xeexa xeexa xeex ba nekk topp pour ñu génnee ko fa du yomba gambian si sax war na leen a leer ne du yomba ya jame ni mu buggee nguur ni mu ko defee ci xolam bi ah waay waay waay waay waay mu toog rek ne waaw suñ ek suñ suñ wut sànni carte gi sax win nañ ma mu wiiri waara ñëwaat taxawaat ne feyaawut <laughs> eh non yow yow yow Yaya Jammeh ku mën a léeb nga léeb léeb ba gam ba Gambia daj Yaya Jammeh moo dàq léeb léeboon lu poon eh, may ma jàmm caaxaanuma de léeboon lu poon Yaya Jammeh yaa ko dàq Gambia fogoon naa ne muskalaf nag bu ëkkatee kàddoom ba wax wax na dara du tax mu dellu gannaaw ci àdduna loolu laa yaakaaroon waaye muskalaf buy naax mu Ablaye Wade sax mënoon nañoo wax ne dafa màgget day naax waaye muskalaf koo xam ne màgget yaa ngi sa digg jamono ngay naax waaye nag coow li yëpp gambien si la dañ ko war a rey dañ ko war a roti ñi doon ñi doon rey dañ leen war a rey dañ leen war a def di dañ leen war a def naa ñu tiit faw ñu tiit ndaxte wax yi nga xam ne ñoo génn ci media bi wax yi génn ci media bi ci boppam moo tax jamono bii ñu pare see teg seen bakken yi yaaya jame baalal ko du yombee noonu yaaya jame dañ ko war a masaka dañ ma ko war a jox ma def ko lii def ko laa dafa am ay mbokka te mbokka yooyu noonu ñoom ñoo bokkoon nekk ci affaire yi ñoom la lifin kii kii promotoon so dafa yomba torop ñuy dégg wax yooyu noonu ci Gambia ni ba pare ñuy release affaire yi noonu dafa yomba dafa yomba torop torop torop torop torop torop torop jóg dafa jot nit ki nag duñ la lifin mbecc nga ya ya ne yàlla baax na ñu lakk sa tubey nga ne yàlla baax ñu dugg sa kër taal ko nga ne lifin muñ rek yenn yi ci ragal la ci ci ragal la xam naa ne du du du lifin de xam naa ne du du du benn làkk rek a lifin yaaya jame ba si mbokki joolaayam yi am na ñoo xam ne seen xol génn na ci moom ngir fi mu bugg a jëmale Gambia te yenn yi rafetut yenn yi rafetut ci kuy ootee ne man jullit laa in the of Allah in the of Allah wone ko billaahi wallahi tallahi su ma newoon Yaya Jammeh su winee dinaa lekk lifin mbaam ma duga si cioj yi jébbal leen suma boppa bu yaay jame wi noonu dama koo def waaye lan bukki bu dari béy di wax lu nekkut ci yow muskalaf balay wax warna naa segga la muy wax ngir lan bañ ku la Gambie du Gambie benn nit ñépp ñoo bugg seen doom yi nekk ay njiit man Gambie rek laa gisee benn président bi mooy di saak mooy wax lu nekka moom rek ay waxkati kii fee eh, dëgga Gambie rek laa ko gis benn nit mooy wax li wax moo dëgg li wax moo am lu keneen waxtaaw di tuumaal nit ci ay sàcc bàyyi jàmbur yi yaayi jàmbur yi anti jàmbur yi sista jàmbur yi broda jàmbur yi di di di leen tuumaal ay nonsense ñu naan kii eh, dëgg la kum téye rek am na loo def ku dul juum amut ku dul juum amut ndem ku dul juum amut téye leen ne yaaya jàmmi nit rek la te day juum te am na benn at mu toog ci télé bi GRTS mu ne nit rek laa damay juum su ma juumee won leen ma ko nit rek laa damay fàtte dee leen may fàttali ngeen jël ko bugg koo teg ci place yi yàlla lu mu def noonu la yenn ragal yi du ragal de jaam la yenn ragal yi jaam dëggantaan la te nag nar naa wante gambian si ku xam yaaya jame xool xol bi moo waxee nar naa wante gambian si Fehel leen ba tan election suñ ko organize soon ngeen daaneel ko lu ko moy rek mu ñaaw te xam naa sax am na ñoo xam ne commencé nañoo dugg ci lifin kii kii mbugal yu mag ñi ma gën a yërëm mooy ñi nga xam ne Europe lañ nekkoon doon xaar ngu nguur yaay jame wàcca bañ dem ñu ne win nañ yaay jame rek ñu jël flight ñu laa ragal ku mun a raam daw génn Gambia def ko ndax ba tey doole baa ngi ci moom Adama amut accès si dara ci këram la toog rek baat biñ ko jox mooy yaay njiiti gaab Gambia loolu rek lañ ko jox su dut loolu joxaguñ ko dara amul doole pour décide lenn yaay jame nag lii dof rek la surprise ne dina siisu dof rek la surprise waaye waroon nasa sàmm kàddoom kàddoom bu ko sàmmoon àdduna bi dinañ ko naw te amoon na ñoo xam ne sax ñu ngee taxaw nañ ko baalal bugut fitna am ñu ngi commencé ñu ngi commencé di confuse Gambian si amon na ñoo xam ne seen xol yaa waaye some Gambians dafa mel ni dañ buggut ceeñis ndax lan Yaya Jammeh dañ ko war a rey suñ ko téyee dañ ko war a yóbbu IEC IEC e xaw ma ICC dugg na fii génn na fële nii lañ ko war a def waaw dañ leen war a fine dañ leen war a def nii dañ leen war a def naa gars yi ne ah waaw ndax Do xeexi di wone sa weapon suma non bi lii laa la amel maa ngee ñëw sa kaw tey nga dee doo ko def danga nuba sa ngànnaay ba toll ci xeex nga génnee ko waaye génne sa paaka booy maa ngee ñëw sa baat bi laa koo lifin jam mu mu jóg ngemb taxaw xaar la fas defante ak yow Yaya Jammeh xam na ne win nañ ko de waaye wax yi Gambien yi génne ci media bi looloo ko taxa fippu ak i nit ak i nitam àdduna mi alalam bi yépp fa fas na koo génne pour difen lifin boppam alalam lépp fas yéene na koo génne pour difen boppam ndax xam na ne fu muy mujjee du jur jàmm jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jëf Jeff, jëf Jeff. bi aduna bi ni moo doxee yàllay buur te ku gëmut ne yàllay buur da nga nara sonn sa aduna laahu fi samawati wal arde borom asamaan ak suuf du juum du jaawaale Yaya Yaya Jammeh nattu la Gambia waxuma ko ngir ne joolaa la ndax dama am ay mbokki joolaa ñoo xam ne ku ci deewoon suma àdduna mu tukki man am naa mbokki joolaa yoo xam ne ku ci deewoon suma àdduna mu tukki ndax du du bokki dëkkandoor gu yàgg su ma deret lañ waaye lépp nañ ko teg ci yoon lii du yëfi joolaa du yëfi soose yëfi Gambia la yëfi Gambia lii ñuul ci soow bi nañ ko seppi sàmme soldaari Gambia nag dañ disappoint ñu bare bare bare bare bare dañ disappoint ñu bari ndax réew mi nga xam ne fa nga juddoo yaroo fa magee fa te bu te su dee dëgg la ci réew ma nga juddoo yaroo fa magee fa jàngee fa di liggéeyal réew ma waat ne dinga xeex pour gàmbiya jàmm mu nekk fa nguur gu ñëw nar ngaa ànd ak moom Ah, waaye nguur nguur goo àndaloon suñ ko winee ol ba nga ànd ak nguur ga ca des fekk sa bakken bii mu ngeek yow yàlla dina la wërsagal loo war a dundee yaag say lifin njaboot seen dunda soldaar yi emut ci yaaya jame balaa yaaya jame yéen ngi am seen jàmm di lekk di naan seen teraanga mu ngi fi woon bu yaaya jame deme it seen teraanga mu ngi fa bu leen jàpp ne àdduna yépp ci yaaya jame la em am na ñoo xam ne nag ay megabytes la ñoo use di déglu vidéo yi di santa gambian si won leen ne gambia mu seen loxo des na ci yéen su ngeen ko fa naree bàyyi mu toogaat fa another twenty two years dafa toogaat ba mu jëlee réew mi ñaari loxoom yépp la tàllal def leen nii ñaari baaraamam yum tàllaloon ci ñaari loxo mi ba loxo bu nekk mooy twenty-two yeesam bi jeexal na fukki élection buñ ko doon sànni dañ koy win te Gambien yi pare nañ ci moom ndax gis nañ léegi lim nekkee woon te xam nañ lim nekkee woon di gërëm ñëpp di sant ñëpp ñi comment ñi siyaa ñiy like waaw ku si gis sa bopp ci vidéo bi nag xamal ne nag mënuma dëkk ci lu la neex waaw mënuma dëkk ci lu neex ñépp munta nekk ñii tey dañoo bëgg ëllëg ñële bëgg am na ñoo xam ne mégabytes la ñoo use pour di follow si dafa métti si ñoom lool lool lool di gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaanal Gambie jàmm ñii ekkati fitna ñi nar a ekkati fitna ngir intérêt benn nit yal na leen yàlla woon lii kii dëgg jërë ngeen jëf